dalleen nag jàmm ci biir Tacko TV ñu ñëw ak yéen nag ci xibaar yi nga xam ni moom moo marqué week-end bi ñu dooree ko nag ak cas de bi nga xam ne mi ngi xewee ca banlieue bu Ndakaaru benn xale bu jigéen bu tollu ci 4 ans maanaam sax bébé la moom lañu daal di violé ki ko sàkku nag di xale bu góor boo xam ne ku ñu wóolu woon la ci famille bi dëkk seen kër a nekkoon fa locataire kii di yaayu xale bu jigéen bi nag jamono ji li muy sàkku nag moom moo ñu daal di koy dimbali xibaar bi le daal boobule yoon mën a def liggéeyam ci moom mi ngi sàkku tamit ndimbal eh, ci wàllum xaalis ngir nu mu toppatoowe doomam ji nga xam ne jamono ji dañu ko daal di sàkku leneen ci xibaar kii di roi du mbalax di Youssou Ndour gannaaw ba mu ubbee groupe Futurs Médias di groupe de presse bu am solo fii ci Sénégal daal di ne ubbi beneen entreprise entreprise bile di yëngu ci wàllum imprimerie nekk fa li nga xam ne moom moo ca diwaanu Diamniadio ci xibaar yi nga xam ne 2028 joxe nañ ko entreprise bile dina créer 2000 emplois 15 milliards ci xaalis def nañ ko ci dont 12 milliards yoo xam ni banque la jóge 3 milliards yi nag apport personnel gannaaw nag ba ki nga xam ni moom mooy roi yu mbalax bile ibbiwee groupe Futurs Médias di fa amal ay emploi yu bëri beneen entreprise boo xam ni kii di Youssou Ndour ubbi na ko fële ca diwaanu Diamniadio ba tey ñu des ki nga xam ni moom mooy Youssou Ndour xam ngeen ni le bi ñu demoon fële ca diwaanu France di fa amal Bercy bi nga xam ni chaque année wala chaque ñaari at da koy amale foofule concert boobu nag gisoon nañ fa ay artistes yu bëri ku ci mel ni Mbathio Ndiaye Mbathio Ndiaye nag li nga xam ni moom moo jaaxal nit ñi mooy dem na fële nga xam ni moom mooy ca concert ba waaye jotul yéeg sur scène li ko waral nag suñu ay naataangoo yu fa point com nee nañ ni eh, kii di soxna Youssou Ndour di Aïda Coulibaly eh, moom moo ni Mbathio Ndiaye du yéeg benn yoon ci seen loole di xibaar boo xam ne jot nañ ko ci Bercy bi nga xam ne kii di Youssou Ndour amale woon na ko le 18 juin bi ñu génn fële ca diwaanu France ñaari tiktokers yile di fay Faynara ak Yesni Dus gis nañ ni daal nañu amal seen soutenance mémoire si week-end bi ñu génn ñoom ñaar ñëpp nag ñu ngi am moyenne bi di 19 sur 20 dimension très bien nekk major de leur promotion loolu nag mi ngi xewee ci week-end ñu mën a xam ni kon euh, jamono ji euh, lii di internet ak jàng euh, mën nañ ko allier ñu daal di jeexale nag ak Coupe d'Afrique de Nations bi nga xam ni war nañ ko amal fële ce diwaanu Côte d'Ivoire ñu ñuy xamal ni nag Coupe d'Afrique bi le dañu ko daal di pousse ba juillet 2024 ñi wa lii waa Confédération africaine de football ñoom ñoo ko daal di décider gannaaw ba ñu waxtaanee jàpp nañ Coupe d'Afrique bi le dañu ko war a pousse 2024 Coupe d'Afrique bi le nag ñu di fàttali ni ngi ko war a amalee eh, fële nga xam ni moom mooy ca diwaanu eh, Côte d'Ivoire jamono ji nag Sénégal nekk tenant du titre eh, ñu leen di xaar bu baax fële nga xam ni moom mooy Coupe d'Afrique bi mbokk yi loolu lañ leen indiloon tey ci xibaar doon leen indil li nga xam ni moom moo gënoon a fës ci week-end ñu leen di jox nag dig daje beneen yoon ci biir Tacko TV